li nga xam ne si noonu la ko baaxoo daan def màggal bu jot mu ñëw ànd a délégation bu mag ñëw balaa màggal gi mu ziyaara sëriñ bi mu ziyaara ziyaara jamono loolu la def tey xam ngeen jamono bi ñu demee ak atam ak euh, as mi xew ñu jël délégation ñu ak ñëpp ñi nga xam si ñu nga aju ci moom wax ko ni ko président nee na mi ngi koy yokku euh, njébbalam mi ngi yeesal njébbalam ci moom di ko wax ni la mu nekkoon rek ca la nekk ba tey toog fa mu toog di déglu ndigal di ko wax ni mi ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal lii nga xam ne si mooy toogaay bi mu toog sa duñ Tuubaa yàlla defal ko ci ndam lépp lu nga xam ne si nësoon na ko ci liggéey yàlla mottalil ko ko di ko waxal ni ko ni ko ñaanalal Sénégal Sénégal yàlla def ñu fi def fi jàmm nawet bii ñu dugg mu mottali ko ak jàmm ñu muurloo ko di ko wax aussi ni nga ñaanal sunu rakk doomam may sa Wade yàlla delloo si ko jàmm ak ci réew mi Euh, sëriñ bi ni ñu bég na lool ci loolu nga xam ne sii def nañ ko tey nu ñu wax ni nañ ko xamalal président Abdoulaye Wade ni ko xelam du jóg ci moom fu mu toll fan yi rek bëggoon na yëkkati délégation sëñ Isaaxa yónnee ko mu nemmee si ko te incha allahu rabbi bu fekkente ni par màggal gi passé na dana yónnee sëñ Isaaxa mu ne si ko indil ko cofeelam ndax mi ngi koy gërëm gërëm gu amul àpp ndax li nga xam ne sii def na ko fii ci ëttu sëñ yi bi dootul fay te yàlla na ko ci yàlla gërëm li nga xam ne si mooy suñuy tàng